de l'arène mi ngi noonu nag xam ngeen ni plateau bi dama ciy ànd ak kooku di Babacar tey dama koy song du ma sori ci nuyoo beeg yooyu noonu xam nga. Mm, mm, mm, Babacar naka sant yàlla. alhamdulilah. alhamdulilah nooy nuyoo suñu mbokk internet yi. waaw balaa ma leen nuyu dama lay nuyu yow bi mat langal. rahmatulah uh-huh. maa lay ziare. di la ñaanal jàmm di ko sàkku si bu baax a baax. di uh-huh. nuyu les techniciens. aussi tout tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan. di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci ñoom. di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah am na solo mi ngi noonu maa leen di nuyu di leen euh, jaajëfal di leen delloo seen wàccuwaay mm-hmm. et euh, su ko defee sans plus tarder dañu daal di dem rek seetaan loolu nga xamante ne mooy yëglekaay di kàcc ci plateau bi. jeudi 9 décembre 2021 dañuy ñëw ak ñu yëglekaay yi lamb la ñuy xëy tey doore ko fa mu mel ni ki yëglekaay bi nga xam ne daal moom moo di sunu lamb tey la mu xëy ñëw moo mooy li maanaam coow li nga xam ne depuis dimanche ba tey moo fi nekk dox ci diggante Siteu ak Papa Sow ak lamb ju yeggul jë yëglekaay bi nag bu bëggee dégg léegi nag daal maanaam verdict ba nga xam ne ni daal joxe wuñ ko ca diggante si taak Papa Sow yëglikaay bi ñëw na ca waaye ñëw na tamit ci wàllum insécurité ma ak wàllum proximité ma yemu ca Siteu tamit am na loo xam ne daal démb ba bañ ko dégloo CNG ba pare ba mu génnee Siteu moom nee na la muy xaar fi mu nekk nii am lu muy wax xanaa kay déglu waa ba ñu jël seen ba mu génn su keroogee daal dina wax lu gën a yaatoo yaatoo yaatu waaye nag moom nee na sans verdict ba ñu def kara moom Siteu la mu bëgg a dégg wala la mu wax mooy loolu moom nekkul loo xam ne nii lu ko arrangé la mel ni kenn daal arène nationale fi mu nekk nii moo boo bëggee dégg-dëgg ginnaaw Siteu Papa Sow ba mu yëglee ñàkk jariñu Alioune Seye 2 ñu jëmaat ci beneen combat boo xam ne bu nganda gu bu nganda nganda la moo muy diggante Modou Lo ak Ama Baldé am na ñoo xam ne tamit daal bu bëggee dégg-dëgg ñu ngay laajte ndax arène ba mën na tee boobu combat ndax dana fa xaj góorandooy jiite les jeunes amateurs nee na moom boobu combat wari su koo sax xalaat di ko def foofu muudu ak ama ndax nag la mu xalaat la mu jàpp mooy muudu la koy topp ci nit bëri na te arène ba mu nga pikin te ama moom kuy wax wàllu mobilisation boo ñëwee ci moom da ngay daal di dëpp du sama ay wax guurandooyee ko wax Malick Thiandoum nekk TFM tamit wax na ca nee na moom daal boo bëggee dëgg moom dëgg-dëgg risque sax la ko jàpp diggante Modou ak Ama ñu def ko foofa Lamine Samba tamit ñëw na ca wax ca moom itam man nekk TFM kon daal fi mu nekk nii moom coow la bari na làmb ji yëngutu na ak lu mën a xew nag moom arène ba moom mooy estadu waa làmb ja yëglikaay ba xëy na tey dina ko xamal leneen loo xam ne ni moom nar naa tàng le 16 décembre war dox ci diggante Youssou Ndour école Balla Gaye ak ki nga xam ne moom moo di caatu yoof yëglikaay bi nee seen face à moom nar naa tàng jër jër jër Assane Ndiaye nag moo ko fas yéenee amal balaa ñëw ci bisu combat ba ñoom ñaari mbër yi ñoo xam ne ni moom seen ñëw na ba pare dimanche ji nu jëm la dox ci diggante Auguste Mbagnick Sène ma ngeen xam retouram ak ka nga xam ne moo di mbul moo tax yëglikaay bi xëy tey sampo laaj ne Auguste que nekkul di risque wala boog di risque ndax nag ku ne xam na ne gëj nga ñoo gis o gis ci làmb am na làmb joo xam ne tamit dimanche jooju ndakaaru lay amee maanaam ka ko tëgg di xaadim sàmb mu dox ci diggante ñàkk jariñ ak ka nga xam ne moo di kéwél bu bawal waaye maam lees di entraîneur parcelle mbooloo la mu jàpp mooy ki nga xam ne nii daal moom moo di ñàkk jariñu bu dee favori maam lees na na moo am favori 60 pour cent loolu nag du sama ay wax waxi maam lees la ba tey ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb keneen koo xam ne nii moom ñëwaat na ci làmb ji ba mu toogee at gisatuñ ko wala gisatuñ ko woon muy prési production bi mu dikkee nag moom combat espoir bu neex a neex la ubbee làmb ja muy diggante brise de mer numéro 2 mi nga xam ne bu yàgguloo njaay am na fi làmb ju rëy daan jël bu rëy ak bébé julde mi nga xam ne ci defet la mujje ki nga xam ne nag moo di prési moom boole na leen def ko grand combat yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu moom sunu làmb leneen loo xam ne nii mu nga fa nga xam ne moo di lit TV si ta tamit mu nga fa daal di wax ginnaaw ba mu jógee fa nga xam ne moo di ca CNG ba démb yëglikaay ba ñëw na tey ñu lu mel ni ki doon wala wan ñu ko ci ab vidéo waxtaan woo xam ne mook Lamine daal ñoom ñaar a ko seet moom seet taat yëglikaay ba wala boog li TV dikkal na ci ñu wala boog ñëwal nañu ci lu mel ni simple ja fa la ñuy jëm la fa xew nag waa ANPS ku ne xam na ne at mu jot dañuy tànn sportif yi ña ca gën a xereñ ren nag moom boo bëggee dégg-dégg ci saison bii nga xam ne moom la ñu génne donte saison ba guddul ci wàllum làmb ba ñu tànnee làmbi simple daal Doudou Sané mu jof yor daal maanaam moom la waa ANPS jàpp ne mooy mbër mi nga xam ne ci wàllum bëri bi àndul ak dóor moo ci gën a xereñ kon nag moom trophée ba moo ko gañe moom Doudou Sané bu jof yor am na koo xam ne faw ma wax ko happy birthday to you kooku mooy kan Assane Wilane borom Kidira Assane Wilane douanier bu mag bi ah Seexu Ousseynou ku ne Assane ne Ousseynou kon joyeux anniversaire borom le 9 décembre du mën a ñàkk doomu ndeyu Abdourahmane Sène loolu la yàlla dogal c'est bon salaamualeykum suñu mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen delloo seen wàccuwaay euh, tey nag suñu naataango yi dañoo dellu siwaat ak euh, yeneen xibaar yu bees mais ba laataama ci gën a xuus rek damay leen di bàyyi ñu. oh la la la la dama naroon ah waaw nuyu naa ba kon nuyoo naa ba pare lépp dugg na léegi damay ñëw rek enchaîner ak euh, kii bi. question yi ngay kii bi. Hmm? nuyoo nañ ba pare damay ñëw ñu dem ci journal bi ok d'accord euh, mi ngi noonu Babacar seetaan nañ loolu nga xamante ne mooy yëglekaay hmm. tey nag euh, suñu naataango yi bii di suñu làmb hmm. dañoo xëyee loolu nga xamante ne mooy verdict Siteu Papa Sow insécurité proximité waaw bon <clears throat> ak lu mën a xew daal xam naa ne. Mm. li am moom am na ba pare verdict ak insécurité ak proximité. Mm. li am solo rek mooy euh, defe naa ne dafa jot ko ñun ñu gën a xoolaat suñu bopp rek si taxawaay si doxalin yi mm. mais nag bon àddina tamit nañu gëm ne que am na li nga xam ne yàlla moo koy dogal. xam nga bakkan moo gën a fort si si si dundu dëj. te nit des fois mu xëy ñàkk bakkanam mm-hmm. kon defe naa tamit bu ndaje amee wala xew-xew am lu mel ni am ca dañuy masaw ki mu dal. wala masawu ñëpp ñi fa nekkoon ak Sénégal yëpp parce que lu metti la parce que tey ñu ngi doon xaar ñu xool jël bi fan lay am parce que ñoom ñëpp ku ci ne wax dëgg yàlla xamuñu la ci lu nga xam ne nii lu yàq làmb la man bokk Siteu ba mu commencé ba tey ba muy ba ni mu ñëw ci làmb ji di bëre saa yu ñëw stade day bëre yaa ngi dégg daan wala ñu daan ko mu ñibbi Papa tamit ku ne xam ko ci loolu noonu la mas a taxawee Sénégal yëpp xam ko mhm. kon defe naa li mu am bërki démb nag kere ci làmb ji dama gëm ne ainsi daal xëy na benn mën nañ ko tudde loolu lu yàlla dogal mais comme li ma waxoon ker tamit dama koy répéter rek yàlla dogal na ko waaye mm. Hmm? Mm. parce que am na loo nga xam ne sa dama naan des fois dama ciy génne li tax na ma yàlla ji nañ ma jégal ci kàddu gi ah mm. mais des sunu engagement lay doon quoi ndax lu xew yàlla fa yàlla mu wutewul dara waaye dafa am loo xam ne nag daf ñuy seetaan dañu xool nu nuy taxawee mm, mm. ci fulla ci fayda ak ci jël sunu ay précaution ci lu mu mën a doon loolu daf yàlla daf koy bëgg yoo xamante ne ça dépend voilà de nous quoi mm-hmm. mais dépendrul ci moom parce que moom bi mu dafa am loo xam ne parce que euh, ñi ñëw fay seen ay billets seetaan si ka organiser ñu dénk ñuy gérer organisation ba muy waa CNC dama ñaan encore une fois ñun la mm-hmm. la fa xew ñun sa ñun la ñun nit ña ñun ñoo ko créé. dëgg dafa xew ñun ñoo ko def. li ko indi nag pour man. Mm, mm. c' CNC bi yore làmb ji rek encore une fois waxoon te mooy li nekk seen manque de volonté kër ci bés boobu. Mm. Euh, ak njuumte bu leen arrivé. Mm-hmm. moo tax li am. Babacar mi ngi noonu de mm-hmm. moo tax it euh, dans dans le même cadre. Mm-hmm. c'était après son audition au CNG. hier. nee na pour l'instant on attend la décision du CNG et en plus teg na ci loolu lu mel ni que nee na la décision du sans verdict ne m'arrange pas. waaw bon parce que bon euh, fi mu nekk nii li moo def mooy comme démb déglu nañ ko. Mm. ah déglu li ci des nag mooy toog xaar parce que nit bu fekkente ne yow fi nga bokk. Euh, ñëwoon nga Brésil jafe-jafe am na nga xam ne ñoom ñoo yore conseil de discipline ñoom ñoo ko woloon parce que CNC dafa amee ay ay ay ay ay parce que président CNC Bira Sène ak vice président bi ku am na loo yore ci biir CNC da nga fay fekk conseil de discipline. ñi nga xam ne nii ñoom ñoo yore wàllum yar gi. ñoo lay déglu. laaj la bu laajee daan ñooñu ñoo koy def. am na ñoo xam ne ñooy superviseur ñooy ñooy ñooy ñoom ñooy superviseur u CNC. làmb amee ñooy superviseur ak yooyu. di noter di yóbbu. yaa ngi dégg am na ñoo xam ne organisation ñoo ko yore ku ci ne am na loo yore am na administration koo xam ne moom mooy euh, yore administration bi ah mooy Ndiame Diop. Mhm. ci côté arbitrage tamit. Mhm. am na ci lutte avec frappe bi koo xam ne moo leen jiite. Mhm. Euh, muy euh, yaakaar naa ne Babacar Diop. ci lutte avec lutte sans frappe bi. arbitre yi ba tey defe naa foofu Malick Ngom suma juul moo fa nekkoon ay bànqaas la. loolu nag su amee ñoom ñi nga xam ne ñoo yore wàllum déglu geeg yar gi ñoom ñoo lay wóot déglu la décision yi war a génn nag ñoom ñoo koy génne moo xam sanction bu ñu lay teg la wala nangam. Mhm. kon si te li muy def mooy xaar. bon sans verdict bi moom nee na arrangé wu ah, waaw bien sûr parce que li mu bëggoon mooy xay na comme. Mhm. adversaire am ak gaañu te moom gaañu ko. Mm. ñu yëkkati loxoom ne ko kon yow am nga ndam mais nag est-ce que. loolu moo nekk ci texte yi. Mm. wala nekku ci. Mm. loolu aussitôt dañuy bàyyi ak ñiy seetaan. ak mm. ñi nga xam ne ni tamit. ñoom ñooy am nañ ci xam-xam am nañ ci voilà voilà. am na solo am na mi ngi mm-hmm. noonu euh, toujours euh, dans le même sujet dañoo ginnaaw saccage yooyu noonu nga xamante ne observé nañ ko foofu ci arène nationale ak euh, yeneen ak yeneen violence. en ce moment la question qu'on mooy est-ce que arène bi mën na accueillir kooku nga xamante ne mooy Modou Lo Ama Baldé. waaw man sama gis-gis mooy mën na ko accueillir Mm. parce que arène nationale ci ay place moo ëpp stade Demba Diop. te stade Demba Diop bis bu ne am na fa. Mm. arène nationale xëy na fenn laa fa gis fu ma xaw awee kii tuuti mooy ci euh, pelouse bi ci suuf foofu. Mm-hmm. mais terewul keroog xamoon Siteu ak Ama Baldé ay astaghfirullah rek ma Siteu ak Ama Baldé ama Siteu ak Papa Sow wu wuñu ñoom ñaar. Mm-hmm. déedéet ku ne yaa ngi ci sa coin nekk ci sa ruq. parce que fañ la teg yaa ak sa morom sorante ngeen. du ngeen laalante. Mm-hmm. teg nañ barrière teg sécurité. Mm. ku bëgg a dem mën nga génn dem dafi li ngay defi ci say sarax ak say affaire esu fewu ak yooyu ba bëri yoon ngeen ñëw ci géew bi bëri Modou Lo ak Ama Baldé tamit mënuñu jëje def lu passé loolu sécurité lañ mën a teg teg ay barrière ku ci ne ñu cadré la fa nga war a ne nga ne la nga war a def nga def ko pour kenn bañ a yegg ci sa morom yaa ni dégg mhm. parce que esta lamb yàqu na fi stade Demba Diop stade Demba Diop mu gën a yaatu pelouse euh, arène nationale mhm. kon encore une fois li ñuy def mooy ñun ña fay dem ñooy jéem a respecter li nga xam ne moom mooy euh, euh, règlement ya fa am surtout jéem a adapté stade bi parce que mënuñu ñu ko tabaxal pour bëre ba pare ñu bañ ko adapté fan la ñuy def mm-hmm. après. Mm-hmm. Euh, stade Léopold Senghor tëj nañ ko. dëgg la Demba Diop ba tax nañu tëj ko. ba fa nit ña ñàkkee seen bakkan yàlla na leen yàlla yërëm kon léegi fu ñuy dem mu la Ama ah, Baldé foo ko yóbbu fu dul arène nationale lañ koy yóbbu dañuy xool bu ñu ko fa yóbboo nu ñuy def ba mu réussir mhm. loolu mooy wax ji loolu nag li koy def mooy mhm. nous les sénégalais ñi nga xam ne ñoo nekk ci làmb ji wala ñun ña fay dem mhm. ñooy fexe ba Modou Lô ak Ama Baldé combat ba réussir mais gëm naa ne ñoom ñaar bu ñu ñëwee ñu taal leneen ñoom ñaar bëre lañ bëgg ñaar ñag bu ñu bëggee bëre ña ñuy àndal kay la ñoom ñoo war a xam seen ay limite CNC li am bërki dem servir ko leçon te defe naa servir na ko ba ku ci ne mbër mu ne dina xam nu mu lay canaliser ba làmb ci mën di continuer am arène nationale parce que arène la pour làmb Sénégal moo tax. voilà surtout Babacar mhm. yi aussi nga xamante ne ñoo ñoo war a bëre war nañ sensibiliser loolu nga xamante ne ñooy seeni supporters ak euh, seeni. accompagnant euh, accompagnant mhm. parce que bi. état bi dañoo investir ci arènes yi ci lieu di sport yi di di di ci investir ay milliards mhm. di ko defar mhm. donc ñi ñi instant bi ñun lu ñu war a def mooy sàmm ko aar ko def euh, loo xamante ne moo ko jëmal kanam maa lu mais pas lu koy yàq parce que boo xoolee ñu bàyyi yeneen ak yeneen euh, domaine lu jëm ci wàllum santé lu jëm ci wàllum euh, agriculture ñu investir ci sport defar loolu nga xamante ne ay stade di accueillir ay nit pour ñu seetaan loolu noonu dañ ko war a sàmm Babacar parce que y' a d' autres problèmes mais ils ont laissé tout ça pour investir ci ci ci ci benn stade boo xamante ne defar ko ba mu baax juste pour nous mettre à l'aise donc je pense que ñun tamit suñu am nañ ci wàll. waaw non dama la naan foofu sax Ramatoulaye dama dul am na foo xam ma d' ak yow. Mm. comme tey ci côté santé. ci côté agriculture. Mm. foofa état nga fay ñu ngi investir bien sûr. voilà ku ñu ngi lay jox la nga moom. Mm. voilà moo dañ leen jox li ñu moom defar la leen arène mérito nañ defar la leen arène. Mm. parce que làmb ci équipe nationale bi saa bu génne day indi ay médailles door mm. yaa ngi dégg. Mm. kon mérito nañ ñu am arène comme bii ñu am. waa làmb dañ ko mérito waa santé la ñuy am. waa làmb amuñu ko. déedéet waa agriculture kazalika naka noonu bànqaas bu ne état nga fay def ay milliards kon bu ko defee fii bu ñu ne arène bi non loolu jarul at 32 milliards pour arène c'est normal parce que bi arène ba nekkul arène ba tey am na yeneen mbir yu fay xew. non am na solo il est mhm. important que loolu nga xamante ne mooy suñuy mbër ñu sensibiliser euh, seeni supporters ak ñëpp ñoo xamante ne dañ leen euh, entouré su ko defee ñu daal di jàll rek duma la bàyyi nga yeggale. <laughs> parce que moom kay aji yow waaw. <laughs> Ah. Mhm. su ko defee ñu daal di jàll rek euh, nee nañu Youssou Ndour caatu Yoff Youssou Ndour ak kooku nga xamante ne mooy caatu Yoff. Mhm. face to face électronique le 16 décembre. face to face électrique. électrique. électronique électronique ¿ah? <laughs> électrique. voilà Babacar Babacar yaa ngi may mhm. waxu de non pas waxu dañuy pour mu neex bon loolu le 16 lay ama Assane Ndiaye fi jaar muy combat bu nar neex boo xam ne ñëpp a xaar kon le 16 décembre xam naa ni incha allah rabbi daal ku ñëw da nga gis bu neex yaakaar naa stade Iba Mar su ma jum fa lay wala daal mais xam naa daal dina neex lool Youssou Ndour ak Thiatou di jàll ci ko nga xamante ne mooy Auguste mhm. contre Mboul ce dimanche mhm. un retour risqué waaw parce que daa gëj a ñëw si làmb te mhm. wax dëgg yàlla waa làmb xam nañ kat mooy Auguste mais mbul mi waa làmb xamaguñ ko bu baax mhm. kon ça veut dire moo lay war ne xale la kon mag ak xale la loolu moo tax yëglikaay bi xalaat ne kon Auguste mi est-ce que nekkul nag dama naan lépp ay risque la parce que saa yeewoo comme bakkan bi yow moomoo ko rek yaa ngi risqué mm. bon kon nag defe naa la nga dugg tam di ca liggéey ah dina am ay risques parce que loolu mu sa forcé mm. kon mais moom mbër bu mag la am na expérience xëy na li tax mu ñëw ba jëlaat xale mm. ça veut dire que am na lu mu yëgaat ci yaram ci yaramam si côté entraînement mm-hmm. si doole ak tamit si jàppale ba tax mu ñëw kon ba ñuy bàyyi ba dimanche rek ñu xool Auguste ak Mboul fan la ñuy mujjee incha allah ñu ngi koy ah ah. xaar euh, avec euh, impatience CNPS euh, les journalistes euh, CN CNPS c'est ça ay ay rahmatullahi mi xanaa tey da nga ndékkiwul <laughs> demal Babacar ah. <laughs> tey. Ah. tey daal yaa quelque chose. Ah, na waar tey bët yi on dirait que gisuñu de ANPS. naan CNT yaa ma souriirul tey da ngaa reetaanul xam nga. <laughs> te yaa ma sourire moo tax bët yi daal instant fi toll nii wala wala wala. dama ndekkiwut. non xam naa da nga xam nga pël yi dañu ragal. xiif non pël moom ñemewuñu xiif. loolu la nag kon noonu la kon noonu la mi ngi noonu ANPS. Mhm. meilleur lutteur sans frappe. Mhm. en deux mille vingt deux mille vingt et un les mhm. journalistes euh, votent Doudou Sané. waaw Doudou Sané di xale bu nga xam ne ci li simple moom la ñu jël ren. ANPS ñoom ñoo def loolu. association nationale de la de la presse sportive. ñoom ñoo ko tànn def ko nag meilleur lutteur bi ah kon ñu koy félicité parce que daaw tam li mu jël ci tournoi moo ëpp mm. moo tax ñu désigné ko mu nekk xale boo xam ne mu ngi dëkk joof yor te kon defe naa ne lii mérito na ko kon encore une du du Sané félicitation tamit parce que bon liggéey moom fu liggéey rek fayee ko ah kon encore une fois félicitation di ko féliciter di féliciter ay supporters am yëpp mhm. ak tamit waa lamb simple yëpp rawatina tamit waa Joof Yor gi nga xam ne mooy dëkkam ak la maire de Joof Yor suma mbokk boobu nga xam ne joomeen la comme man mhm. mm, Youssou Diom maa ngi koy ziar di nuyu waa Joof Yor yëpp ah macha allah am na mhm. solo kon euh, félicitation à Doudou Sané ainsi que loolu nga xamante ne mooy ñooy ay euh, supporters am brise de mer de bébé Diouldé affiche ficelée par Prési producteur prési waaw prési production ah, prési promoteur la bu fi bu doon xale jeune commencé woon di tëgg ay lamb benn moment mu xaw a taxaw mhm. san baay mais dikkaat na mhm. bi dikkaat tamit andi na combat ay xale ndax bébé julde xale la mhm. nekkoon si yoon am quelque dagg-dagg bon prise de mer de tamit xamoon ay dagg-dagg dikkaat am retour bu am doole daan kera combat bu rëy ah. Euh, tey defe naa ne bu ñu ko boolewaat ak bébé Diouldé grand a prési def ko kon damay wax prési rek kani pré journée boobu yàlla na ko réussir ak jàmm parce que prési moom sama c'est mon ami quoi prési. macha allah c'est mon ami depuis Mbapat mu koy tëgg ba nii muy dugg tëgg arène. macha allah dafa am a daal bien sûr waaw parce que ah, moom mu doon tëgg ay terrain déggoo mhm. fële ci banque bi Medina ku dëkk Medina mhm. xam nga terrain déggoo wala mhm. tëgg ay mbapat di ko tëgg reefan macha allah di tëgg ay seen dëkkam quoi reefan tey bu xam ne yokkute am na quoi lii mooy àddina allah kon félicitations à lui euh, Mame Less coach euh, ñàkk njëriñ ñàkk njëriñu ñàkk njëriñu ñàkk njëriñu. ñàkk ñàkk njëriñu c'est ça na waar ah. turam bi kay doy na waar yow mi kay yaa ko ñàkk njëriñu favori à 60 pour cent devant Kewel. ñàkk jariñu ah. kon moom xam naa ñàkk jala mën ta wax. waaye waaye du ñàkk c'est ñàkk jariñu ñàkk jariñu mbër la mu war a bëre ak Kewel. Uh-huh. maam les tam di course su nekk parcelle mbooloo di connaisseur u làmb moom li mu jàpp mooy. ci favori bu koy joxee ñaq la ko jox jàpp na ne ñaq. moom moo nekk favori 60 pour cent devant Kewel. moom gis-gis boobu la amee loolu nag gis-gisam la waaye dama nan ko man man bay man Babacar si ñoom ñaar bu may ko doon wax tey. damay jox ñaq favori bi légèrement. légèrement parce que moo Kewel dama ko xam dafa mën a bëree te xale boo xam ne ni. xale bu am fit la. yaa ngi dégg am lu mu def. Mm. ñaq tamit nekk ndaanaan boo xam ne ndaanaan ku lu fadrin la. Mm. yaa ngi dégg. Mm. te xam naa ne du mbër mu neex dan te ku mën a bëre la moom ñàkk jariñu mii. Mm. kon defe naa ne waaye 60 pour cent yi laa yaakaar ne est ce que du bëri. est ce que du bëri bu doon yow combien de pour cent nga koy jox waaw légèrement laa la wax man. waaw su ma la waxee légèrement ça veut dire que. Mm-hmm. mën naa ko jox favori 55 pour cent. d' accord waaw wala 51 pour cent yooyu quoi. Mm.